waaw Issa dañoo gis ni tey yéen a ngi génne seen bagage yi yéen a ngi jógee ci tabaski métti na ñeneen ñaa ngi dëkk ci dëkk yu sori métti na yéen a ngi génne seen bagage yi donte bu ko dee de defar sa place ba mu baax nga roñ say bagage loolu la ñu war na may waaye dèjà ñoom sax tey jëlee ñu waxoon waaye démb la ñu may dale ni tay tay bu démb fi dara fanaan kon nag buñ ko defalee nii mën nañ cee dawal yërmande nit ki nag bis boo nee ko di nga jóg mën la dinaa jóg ban nango li ci def mën nañ ko mën nañ ko def ci tey ak bakkan ñu may ñuy battement tuuti bu ko defee ñu jéem a jël suñu bagage waaye nit ñu koy jëlee nii wax dëgg yàlla metti na metti na ñëpp julli ji kenn ko dem sa famille julli ji même pas 24 heures sax nga dellu si waat dakaar ndaxte man Touba laa jullee démb laa fi ñëwaat dem ci samedi bi àjjuma lañ jëm samedi ma ñëwaat metti na mais nag mënoon na ñu dimbale daal au moins daal ñu may ñi am na ñoo xay si ba léegi génne woon seen i bagage ñu jógee fa sori di ñëw dëkk àll yi ñëw fi du dem rek dëkkaat du yomb kon nag daal loolu daal moo ñu metti daal waaye ñun bañu ñëw jóg jamono si nañ bépp nag naa waa Sandaga dañoo bañ a jóg dañoo bañ a no non bañ ñëw jóg bëgg nañ ku ñu defaraal bu fekkee defara bi leer na te ale boo gis na yàlla na am retour waaye su amul retour nag dina doy waar ndaxte dañ ne woon dinañ defal contrat yu leer yoo xay ni si kenn ku nekk day am contrat boo xay boo demee di nga dellusiwaat contrat yooyu ba léegi amuñu ko loolu daal xaw nañu see metti xam naa nag li ci des moom njiit yi lañ koy bàyyi rek ñu yeggalal ñu ko njiit yi ñu ngi foofu waaw. waaw fi ngeen war a dem tamit mais est ce am ngeen ci xalaat a dem est fii. non bokkul bokkul ndax am bokkul des fois man fu ma vitrine moom bi mën na ko yóbbu centre course dañoo obligé defaraat yeneen te nit ki boo koy toxal war nga am mesure d'accompagnement yoo xam ne si war nañu war na cee am te amu ci amu ci maanaam daal nañ def commerçant yi daal mel ni ñun moom daal ci dëkk bi comme ay étranger quoi yàlla baax na ñu moom sëñ Fallou rek waaw. waaw li ma ñuy wax tamit foofu tamit euh, xaw na sori te client yi ni ñu ñëwee foofu bokkul ak ni ñu ni ñëwee fii boobu naka ngeen ko war a lijjante. non wax ndax quoi ndax day sànq gu ñu ba xam client yi dinañ ñëw wala du ñëw. mbiri suñu borom la quoi ñuy ñaan rek comme client yi ñoo xamal ne ñun fii lañ nekk léegi ñu nga fee client yi den yàlla baax na daal tant que suñu wërsëg sa wërsëg jeexut di nga incha allah di nga ko am di nga ci jot bu soobee a jërëjëf